nañu li loolu deuxième partie troisième partie moi président de la république ne l'église comme loolu yëpp am na dinaa na nag wax ak askan wi wax bi quatrième partie moi mooy doon ci fan yu néew di ngeen gis assemblée nationale d'urgence procédure d'urgence Gaulin, genn génn lii dafa yàkkamti pour l'année tant tënk ñoom ci dil ñu voté ko rapidement assemblée nationale comme amener une majorité